maa ngi nuyu ñëpp ñu fi ñëw gën a nuyu journalistes yi ñu ñëw pour permettre ñu ñu am ab déclaration bi ñuy def euh, jëmale ko ci xew-xew gile di nuyu bépp senegale ak foo mënta ne nuyu kilifa yi ñu ŋànk réew mi kilifa yi aada mais ak kilifa yi diina itam bàyyiwuñu kenn ah ñu doon wax ni dafa am li ñu laal ci sunu biir xol ñun ñan ñun Iblis di kaasa ku naan Iblis di kaasa dangay ngay cité dëkk bu ñuy naan jooge dëkk bu ñuy naan xiitu xayeer bëkkasug ak ñoomun ñoom ñooñu yëpp ñoo ngi féete ci Euh, booy dugg ci fleuve Casamance maanaam ci loxoy càmmiñ gi bu fekkente ne ndakaaru nga jóge alors communauté googu moo fi teew tey pour wax ci li am ci fan yi communauté boobu ay joolaa fa dëkk et wax dëgg yàlla ba ñu juddoo ñu ne ñu ay joolaa lañu dañoo sant sunu borom maanaam fonk nañu li ñu doon parce que dafa di ab communauté boo xamante ne ay valeur kese la ay nit ñu fonk seen bopp lañu ay nit ñu am pas-pas ay nit ñu am kóllëre mais ay nit ñu jub tam ay nit ñoo xamante ne xam nañu bu baax l'essence élevée de l'honneur ay nit ñu mën a téye lii di secret maanaam am nañu bàmmeelu biir mais it ay nit ñu respecté seeni nawle ci lépp li ñuy mënta bokk di wax ni que yooyu valeur ñun ñuy inculquer moom moo waral sunu tekk tekkaaral bi ba mbir mi amee ba léegi xam nga ndaw foo ko fekk dafay faral di bëgg bu nee bu déggee ñu ne tël rek mu génn waaye parce que dañoo am ay mag yoo xamante ne wax dëgg yàlla ay mag ñu ko mat la ba pare it ñun ñu déggal leen ñooñu wax ñu ni que def leen ndànk ba ñu am information yi nga xamante ne moom moo ñuy permettre ñu janoo ak askan wi. ci loolu ñu bëgg a xamal Sénégal ak li ko wër àddina sépp laay wax ñan ñooy suñu ñaari mbokk yi ñu wax ni danoo réer. njëkkee ko ci l'adjudant chef Didier batsi mu àndoon ak ki ñuy naan Fulbert Sambou mu doon un sergent de l'armée mu doon ay doom bépp jigéen bëgg a jur mu doon ay doom yoo xamante ne ñu am am solo ci senegal parce que état la doon servir ñu am am solo ci seeni famille seeni njaboot mais ñu am am solo ci sunu askan alors nit ñooñu yar nañu leen fañ leen war a yare tàggat nañ leen it fañ leen waree tàggat ump leen ni que ku naan joola xam na li ñuy naan bois sacré joola wax ko rek ci gàttal mooy maanaam formation bu njëkk foofu la koy amee avant muy génn dugg ci société bi yooyu valeur yanu fa jëlee mu doon lu bare ci ndencum secret yàlla xam na ni lépp luñ la fa jàngal mënoo ko waxtaanee ak kenn sa soxna sa dinga dem ba sangoo suuf te du xam li fa jëlee kon joolaa doonul koo xamante ne xaritoo ak moom dong tax na ba lépp la mu xam mu dénk la ko kon Didier ak Fulbert ñi bokk ci nit ñooñu ci doomu ñoomun yooyu ak li ko wër ñu doon ay nit ya ñu ràññee ci def lu baax mais it cib liggéey liggéey dong lañu xam xamuñu caaxaan fu caaxaan di am doo leen fa fekk kon dañuy tënk rekk ne ay jàmbaar lañu ci lépp avant ñu dooni jàmbaar yi soldat nekkoon nañu jàmbaar ci sunu askan ba noppi ay jàmbaar lañu parce que it armée moo ñu xamal ni que ñoom ñaar ñooñu danoo bokk ci service su renseignement les gendarmes Didier mu bokk ci inspection de la gendarmerie Fulbert mu nekk un militaire également dans le renseignement alors ñaari corps yooyu du ku ne moo fay dugg ce sont des corps d'élite kon ñun jàpp nañu ni que mënoon nañu seen liggéey te bépp qualité bi tax ñu yóbbu leen foofu moo ngi woon ak ñoom alors bu nu jógee ci loolu a ah, comme ci sunu njaboot lanu bokk ñu wax ni ko mënunoo toog te duñu def dara waaye li ñuy def it xam nañu ko daanu fexe bay ànd ak sunu sago donc kuréel gii ñuy naan rassemblement des îles Bliss di Kasa te ma tuddoon ko ca njëlbéen gi wax nañu ni que ñoo ngi rafetlu bu baax taxawaayu procureur de la république ba mu nee ubbi na enquête ci loolu mu yokk ne en tout cas service compétent wu état tous ces services donc ñoo ngi en loolu rafetlu nanu ko bu baax a baax a baax waaye ñu wax ni que du ñu yem ci rafetlu googu taxawaayu procureur ñoo ngi laaj état Sénégal pour ne pas ñoo ngi ñaax état senegal mu def kémtulaay kàttanam ba fexe ba génneel ñu suñu doom yooyu xamuñu fa ñu ne ci seeni waxin dañoo wax ni que danoo réer te ku musaan réer ku ne ñun dañuy ñaan yàlla mu feeñ waaye ñu ni nen xëy na pour feeñal leen du yombur moo taxit ñoo ngi sàkku ci état Sénégal moom mi am Euh, un devoir régalien te ñun ñi bokk ci njabootam mu njaboote ni ñun ñëpp mu def lépp la mu mën pour ñaar ñooñu génn dellu ci seen bërëb liggéeyukaay mais dellu également ci seeni njaboot parce que danoo njaboote ci loola ñay wax ni que parce que nee nañu xel xalaat doom lay njëriñ te ku nekk ak xelam ku nekk ak interrogation yu ngay mën a def mu am ay sénégalais yu bare yoo xamante ne bi mbir miy fase ba léegi ñoo ngi am ay laaj yu ñuy yëkkati ci laaj yi am na ñiy posé wu question naka la ay soldaar mën a réer ci zone Ndakaaru boo xamante ne ñépp jàpp nañu ni moo gën a am sécurité maanaam manuel ci laaj yi am na ñiy wax ne houle maanaam vague ci nasaraan naka lay mu ne génn cib géej fekk ñaari ponkal ay soldats de surcroît yóbbu leen ci géej ga te bàyyi fa seeni dàll ak seeni portable loolu mu doon it laaj yi yi nga xamante ne moom moo nekk di sonnal senegal yu bëri ñi yokk ci ne naka lay ay soldaar yu nga xamante ne danoo xareñ ba ñu dugal leen ci corps stratégique mooy maanaam koor yu am am solo naka lañuy ñuy munee réer volontairement maanaam jékki-jékki ne man damay réeral sama bopp loolu am na yaakaar ni xel waru ko mën a nangu réeral seen bopp depuis juróom-benni fan ba waxtu gilee kenn mënu la wax loo xamante ne dalal na sab xel ci laajte gu mujj gi ñu wax ni alors kan moo am intérêt ci Sénégal gi le di joxe ay information yoo xamante ne dëgguwul parce que mënuma tuddee moo bi autrement kan donc moo am sañ-sañ di joxe information yoo xamante ne dëgguwul du dëgg à longueur de journée et kooku di koy joxe ci lan lay jublu ba muy joxe yooyu information ci lan la jublu donc voilà entre autres questions yi laaj yi nga xamante ne moo ngi ëlëmal xelub sénégalais yu bëri ma ñëw di wax ni que kuréel gama junj woon sànq ñoo ngi laaj seeni membre sénégalais yépp lañuy wax ñu redoubler de vigilance ku nekk na nga ubbi say bët ku nekk di doxe sab xel bu nu kenn génnee ci yoon wu ñu nekk bu ñu kenn distraire nañu taxaw tem comme benn nit ba keroog bi suñu mbokk yi di génn ñiy sog a xam naka la di ci yokk ne suñu doom yooyu nekk ay sénégalais à mu am dégg la ci askan ku ñu bokk ñun de duñu nangu wax dëgg yàlla ñi doon les agneaux du sacrifice may daaneel nag ci turu rassemblement bi di lancer un appel appel bi ñoo ngi koy jëmale ci famille religieuse yi maanaam ñi ngànk tey suñuy diina ñu doon suñuy kilifa moo xam jullit moo xam katolik moo xam ñi nga xamante ne bokkuñu ci ñaar yooyu ma njëkk liim les autorités coutumières ak bépp doomu aadama bu Sénégal ak bi dëkkul Sénégal mais koo xamante ne Sénégal soxal na ko jàmmay senegal soxal na ko ñoo ngi leen di ñaan bu baax ñépp jóg ñépp jàpp ci ñépp ñaanit parce que mënul ñàkk pour suñu mbokk yooyu nga xamante ne tey ji en tout cas gisuñu leen fen yàlla may leen ñu dell si fa ñu nekkoon di bañ bu loolu amul leneen bu amee du doon wax dëgg yàlla ndam ci senegal senegal ndam la musoon na damoo kon ñoo ngi ñaan yenn journalistes yi yenn sénégalais yi ñuy déglu ngeen nekk ci Sénégal ci biir senegal ak ci diaspora bi ngeen xam ni euh, seeni mbokk ay sénégalais comme yéen ñoo am tey njaaxle bu rëy a rëy a rëy ñu wax ni que ah daanu ñëw janoo ak ñëpp pour nit ñi dégguñu ba képp ku ci mën a def dara pour yëfi saafaraw mu def ko ci wasalaam.